ñu toog alaaj Matar ba mu baax mi te yàgg nañu ñëw di ko teewe ah Youssou Ndour amoon na jamono day ñëw toog di ko teewe tey Waly Balago Seck doon football tey mu ñëw toog di ko teewe donc ñu ngi ciy jàpp xanaa kay euh, peut-être fi jamono toll la mais vraiment luñ ci jàpp doyul nañu gën a jàpp ndax événement bu toll nii ba pare duré vingt ans événement bu def vingt ans bu ñu ko doon seet ci réew mi du bëri kon nañu fonk événement bi te xam ne euh, sénégalais dañu bëgg artistes yi. sénégalais dañu bëgg seeni artiste donc boo bëggee sa artiste nag lii rek nga ko mënal mooy li xale yi def ñëw mooy li presse bi def ndax musique bi mënul dem sans la presse. d'accord Papa Youssou tey lan nga yëg bi ñi nga xamante problème amu ci. Ah. Ah, mais amu ci. mais lu lu luñ doon waaj rek ñun waaj suñu yëf la. mu ne saa yu ñu génnee ñun ñu xam ne génn nañu su Saloum suba la bu soobee yàlla buñ ca àggee di ngeen xam ne waaye dafa teel a xëy. Mariatine tey dañ xool ko sama sama sama rakk ji daa maana. daa maana ñuy rendre hommage ki nga xamante ne moo di Papa Thione. waaw ko léegi dafa di loo xamante ni tubaarkàlla euh, euh, moog rappeurs yi am relation bu nice gis ngeen euh, featuring yoo xam ne def na ko ak rappeurs yu dul jeex du xaaj. muy fii muy muy muy muy bitim réew donc bu fi jugee ñu def lii Papa Thione seen pap la dañu delloo njukkal seen baay dañu delloo njukkal koo xamante ni seen seen seen seen idole la woon ah di icône boo xamante ni Sénégal du ko fàtte rappeurs yi dañu tàmbali rek mais yeneen i yeneen i yeneen i euh, euh, dédicace ñi ngi ñëw yeneen i cër mi ngi ñëw yeneen i tuddee mi ngi ñëw incha allah rabbi. nan man mbalaxmaan la Melaxmaan yi nga jàpp. waaw waaw comme comme toujours. non Melaxmaan dañuy dóor. dañuy dóor day bëri sax. <laughs> jaajëf waaw mais wax wax maa maa ngi koy wax léegi violence ak sport ñoo ànd nañu nañ ko rafetal rek te yedd xale yi xam nga calmer leen ah euh, violence du dara. Euh, léeg-léeg yaram yi day tàng rek xale yi mer def loo xam ne peut-être euh, duñu contrôler mais nañ leen yokk yedd ay xale dañ leen di yar dañ leen di yedd dañ leen yokk yedd yokk leen yar ba nga xamante ni dinañ xam ne football ak sport fair play la ñun football la ñuy jàngale te fair fair play la ñu war a jàngale nañu jàngale fair play dina tax xale yi xam ne football am po la